mënuñu ci ñëw tey sa maîtrise wu yoonu géej gi ndax ku la xam tey xam la ci maanaam xam la nit ñi kanay sëñ Touba ak la mu daj ci géej gi waaye fan yi duma la ko wax réseaux sociaux ak coow lu bëri maamoor na noppi parce que mel na ni li muy nettali sëñ bi am na lu mu ci maîtriser am na lu mu ci xamul euh, lan moo xew c'est des détracteurs wala sa ñàkk maîtrise la noo jàngatee tey jii nii yooyee nga xamante ne tey jii nii coow la ndax léegi dañ naan murit gi am na ñu ciy yokk am na ñu ciy wàññi am na ñoo xam ne bës bi moo leen tax a jóg wala leneen yéene lañ ci am nooy gérer loolu yëpp maam moom. li ngay wax sax ko parce que loolu kuy déglu commentaire ak di ko xool moo yëg bi jëkk loolu laa la ci tontu bu dee am na itam ma tontu la ci ndax respecté sa laaj bi nga laaj kenn ku jóg ñëpp ànd ak moom amul yonent bi am nañu new du yonent ba tey. dëkk ak yow bàyyi fii Sénégal boo tudd boo nee Seydina Muhammad yonent la ñu lànk looloo ma gën a naqari ci àddina am na ñoo xam ne ba tey d'accorduñ ne màggal gi war naa am nanguluñu sëñ tuba waaw léegi am na ñoo xam ne bëgguñu sax yàlla parce que bañ yàlla weesuwut mu def dara nga bañ mais ñi koy wax ñépp ak commentaire di wax lu ñaaw xëy na comme yaa ma ko wax dañoo mer na leer fii rek nga. ñooñ dañoo mer. lañ mer xam lu leen naqari. Mamour daa am xaalis <laughs> Mamour dafa neex a bëgg am na ci ñoo xamante ne sama une heure de temps mooy seen salaire trois mois dañuy mer nag. Mamour sëñ Touba seetaanu ko de. laa ilaaha illallah man mi maa war a sant sëñ Touba man xaamoo bu ma demoon ba yow ma xëyaam sax. awma fa dara rek fii baax na. parce nga baal ma gis naa fi démb ak barki démb am ñu génne ay image lu ne ñu mel ni genre dañ lay attaqué Mamor ci lii la doon yëngu waaye tey. ku gi photo douzième gaynde ba. bi ma doon supporter équipe nationale. non ki ko génne dafa ma ko envoyé ne ma fais attention wala ñu publier ko man maa ko publier man man football laa daan def. def naa nag ar armation def naa ko moo tax gars yi Facebook rek lañu ñuy attaqué mais jàkkaarloog Mamor attaqué ko. dama lay damate nu man sax ku daakaaroo man attaqué du ma la def dara parce que damay xam da ngaa am yow foo ne te romb naa foofu gis nga fii ñuy attaqué fi ne nii bii boo ko dugalee man pare naa ci bu kama sant ak ka laa yemale mais bis jot ñu wax samay kilifa lu ñaaw te ñu ko muñ ki naan ma noppi ma noppee lu may def damay taaxuraani ci te ñoom ñuy wax loolu nañ fàtte ne que man samay maam samay maam dañ daan way géwél euh, buur ba mu daanu géwél yi dañ daan way buur ba mu daanu man nag wayu ma benn buur sëñ Bàmba laay way ak di wax ay jalooreem daal dafay ngoor ci yow la sëñ Touba defal yónent wax sax ñeneen ñi tontu ci Facebook yi képp koo xamante ne mi ngi wax dara ci yow danga koo romb sëñ Abdou nee na sa tànk yu dëng yi ki nga jiitu rek ko ko mën a xool fi mu ne nii boo dugalee lii di nga gis ko saaga ku ma wax dara mais kooku suma ko gisoon may ko dix ndax mu dolli ko tey xamoo am na ñu la saaga daaw saaga wuñ la ren xam nga lu tax ñu ngi ci biir suuf corona bi li mu jël am na ñu la saaga daaw saaga la ren et puis am na ñu ñu saaga daaw ñu ngi ci biir suuf. puis lu ko fi jar wax naa benn wax man attaqué wu ma la sama sëriñ def jaloore nettali naa ko naqari na la kooku yow yaa xam. tuddoo kenn sëñ Touba nga tudd. saa yu naqaree nit ba mu wax lu ñaaw di nga gis téeméer yoo xam ne bu ñu la gisee teral la ngir sëñ Touba démb Pape Diop Pape Diop président Pape Diop xam nga lu mu ma yónnee ci sama émission bu mu seetaan téeméeri junni maître Mbaye Dieng xam nga ko avocat xawma ko moom may na ma million ci màggal gi bërki démb Mame Mor Sène noonu nar na ñoo sonn ma li mag am na koo xam ne nee ma boo ñëwee jël beneen oto kër ki mu naqari ba mu saaga am nga kër R plus 2 laa tabax caaro yi te man maçon laa maa liggéeyal sama bopp sama kër maa ngi bëgg a tàmbali beneen kër goo xam ne fii Seex Basirum Sëñ Abdou Xaadir moo ma jox terrain bi amaat naa beneen terrain Daaru Salaam sëñ jiilee ma ko jox terrain yi nag xaw num nu toll. lan mooy sa secret. Sëriñ bàmb yaakaar ko teg ko sama kanam man ki may fay salaire gars yi la cinq la ñuy kaas naan salaire yi ñëwagul man la vingt huit mu fay ma. fi ne sama poos yëpp xaalis la <laughs> gars yi mer. dañuy tëj. ndax mbette bàyyi ma may ñi may xas yaa ko wax de man seetaanuma ko parce que man ki ma gën a ki ma gën a xam ni dafa tardé muy ku bind lu ñaaw kii day fen kii day laa kii day nàngam loolu lañ wax wala euh, ca lañ dëkk lu ne lañ may wax a ah, ñooñu est ce que koo xoolal ko ma ci bëgg doon man te ba sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Maxtaar Sekk bu Mbooro hmm. nee na bu la nit di ŋàññ di la wax lu ñaaw di la wax lu ñaaw ñu yee ko guddi na ko suba dañoo bëgg nga mel ni diw mi ngay wax lu ñaaw bu yàkkamtee fajar jot lam la doon wax nekkul ci yow ca moom la ne asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf Maam Mor